bachelier non orienté may nañ ko fii ak tabaski mu saafara jafe-jafe monde rural bi nga xam ne lenn rek la bëgg mooy ñu delloo ko ndoxam may nañ ko fii ak tabaski mu réglé jafe-jafe suuf waa Guéréo waa Jilaax waa Ndengler waa Kiñaabuur waa Balabugu waa Kër Sambakan ak waa Mbaaw waa Terme Nord itam quartier boobu nga xam ne depuis 1940 dara yokku fa dara baaxu fa nañ ko jag-jagal ndaxte ay doomu aadama ñoo fa nekk fii ak tabaski nag bu ñu reglewul wul jafe-jafe yooyu ñun dinañ ñëwaat bu boobaa lu ñu dégg ñun la bu boobaa lu ñu gis ñun la ñu ngi nag lancer un appel mbooloo bii nañ ko dooleel mbooloo bii nañ ko jëmmal mbooloo bi nañ ko fulal di lancer un appel à tous les autres collectifs à toutes les autres organisations de victimes ñu ñëw def benn say ndaxte bu ñu booloowee kenn du ñu mun daan jërë ngeen jëf. ok merci. si a jot moo leen vidéo mën a